Ah, parce que vraiment ku mu redressé ci xeex moo tax xam nga gars yi dañuy nekk di wax mais incha allah dimanche dëpp dina leer ne xam na ni bëgguma wax lenn blessé doomu aadama mu nekk suma nawle loolu rek laa mos a wax ci moom ci bëri ah. ok mais nag dégg naa communication bu baax. mais dimanche mënuma pousse dóor virgule incha balaa may jox euh, suma gars yi ñu ñëw alors ñu bëri techniciens yu bëri dañ naan bëri bi dañ ko jox ëmma xeex bi euh, euh, tafatil moom moo ko moom mais tafa biñ ko laajee nee nañu bàyyi xeex bi fële yéen ñaar ngeen bëri. <laughs> waaw loolu moom dañ ko koy nangu rek dafa moom. moom la jàpp ni Codou Mbaye rek moo daa xeex moo daa ko bëree mais li ma ko waxoon suñu signature bi laa koy wax yàggutu damaa bëgg si biir géew bi te góor balaa nga kaa yeb ñam ko xamul lu may saf tawaati kumpale na ma trop moom xamul lu may saf nañ xool jaar-jaar yi moom fu mu jaar ak fi ma jaar nañu ko na xoolaat bu baax li muy wax ndax mbër yi gën a ës si làmb ji mbër yi nga xam du yee yaafus am naa fu ma jaar ak ñoom te ñooñu am nañ fu jaar ak moom loolu wax Bombardier daanu ko daanu Bombardier dama ko daan ñaari yoon Balla Gaye da nga daan dama daan Balla Gaye deux fois ñi nga daan ñëpp ñu ngi nii kàpp ñëpp ñu dama daan xam na ko kon suñu jàkkaarloo bi maag moom mu taxaw la de guerre da ko daan la de guerre dama ko jàpp gitaar bi mu toog yaa ngi dégg merci jaajëf ok kon bu ñu toogee maag moom muy wax ma noppi muy wax ma noppi respect boo ko jox la rek ak cër ko jox waaye nañ xool kii jaar bu baax maag moom mënuñu bokk góor na balaa ngay ñam li mu wax na ko dëggal dimanche dimanche man maa ngi xaar tafaati ci biir géew bi nañ gën maag moom su bëccëg nañ jàkkaarloo te arbitre dina géew suñu diggante ba ci huit mètres ak quatre mètres jaru ko góor yàlla la may góor yàlla ñu ñaari si biir géew gi <laughs> wax jaraboo dimanche ak bi incha allah. Fan Eumeu Sène a yàlla li ñu ñëwee di nag yàlla mi xam ne nii moom moo yor yàlla defaluma ko lu tax may may ndam mais kii ñàkk tamit yàlla defal ko lu mu koy xañ ndam ndam yëpp yàlla suñu borom moo xool ku ko neex mu jox la ko nag ci yàlla suñu borom bis mu may ñu ndam. incha allah ci kàddu ci kàddu après ñu xool ñaar ba ñett ci gaa yi ah ñu samp ay laaj bu ko defee ñu mën a libérer sànni donc euh, ñi bëgg a laaj après ñu ñu wax. jërëjëf Malick maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax di amal dem ci ak kontaan baax a baax. fii ci biir bi ñu comme démb ni ñu ko defee woon rek fële ca Médina fekk fa waa Bawol ñu préparé bés bi. tey loolu lañ ko defee fii ci biir Pikine maa ngi nuyu assistance bi yëpp waaye ama seen démb doonu jàkkaarloo ak ki nga xamante ni moom mooy Tapha Tine mais dañu jàkkaarloo ak moom dañu gis ni Tapha combat bi daf ci wàññi poids bi parce que moo war a sax démb mu ñëw sol ensemble blouson ndax dafa wàññi poids bi ndax dafa bëgg a mobile ci combat parce que dafa yàgg dégg ci nopp senegal yi ñu koy gëmul ni ama dafa aay ci loolu Eumeu Sène dafa aay ci loolu kon Tapha Tine dafa pare pour mobile ci combat bi pour onze combat bi pour jàkkaarloog yow xeex ak yow est-ce que pare nga pour jàkkaarloog Tapha Tine xeex ak yow. waaw jàmbaar loolu moom yaakaar naa ne léegi wax bu yàqu la parce que ñi ma jàkkaarloo ñoo daan xeex ñoo daan ko bëri te dama am lu fi ma jaaral ñoom du dégg ma sa benn combat sa dóor sama combat kii di boroo rek kenn ko fàtte. boo bëggee kenn gën ko gis loxo encaissé naa ko woon mbër moo bëree xeex naa ak yow fii mbër ñi am ñoo daa xeex ci làmb yi xeex naa ak ñoom dëgg man nag mu yokk poids ak mu wàññi poids loolu man li ci tuub concerné wu ma quoi. waaw waaw damaa ne aw ma lenn lu may sóor ci moom wala ma jënd ci moom aw ma lenn lu may sóor ci moom aw ma kàddu ci moom. merci. bi ci des ñaari question rek laa am bi ci des mooy Tapha dañ ko ne xeex bi ngay indi ñëpp Sénégal yëpp nee nañ see xeex. la tafaatin am bi ne moom xeex bi da koy teg fële amul seen na dëggal boppam ñu jàkkaarloo ci combat bi laa fas yéene sama bopp ñu xam ne man damaa mën a bëri ñu jàppoon bi bëri man ak moom léegi bi waxoon ñëpp de ba ñu ñibbi nga bàyyi sa tàlle sa daa yëngu jërëjëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar nekk rek si réew mi ak si bitim réew sama question ñaar la pour Eumeu Sène waaye Malick balaa loolu rek damay félicité waa Pikine di leen encouragé di leen wax ne na seen xel dem ci 2018 2018 28 juillet ci la Eumeu Sène jël roi des arènes 2018 17 février ci la Ama Baldé daan Papa Sow 2018 11 mars ci la Sa Thiès ci la Boy Niang daan Sa Thiès yaakaar naa ne tey lu leen mën a nekk seen xel war naa mën a dem ci 2018 ba tax na comme ni ñu koy waxee comme ni ko Eumeu Sène waxee léegi bu fekkee ne dafa am ñu jege Ama wala booy Niang wax Eumeu Sène moo war a génn daar daar def vidéo pour seetal boppam yaakaar naa ne loolu bu ñu ko defal rek coow dootul am mais le fait que ñu jege mbëri di wax mbëri noppi bu boobaa nag coow li day gën a bëri di leen ziar baax di leen jox seen wàccuwaay sama question Eumeu Sène dañu gis ne ñi nekk si làmb ñoom nga daan ñu daan la nga dese benn VIP ci làmb mooy tafaati te combat bi moo gën a rëy ci carrière parce que bu ko daanee roi des arènes day nekk si kanamam. combat bi aussi tamit yow boo ko pertee sa taxawaay ci VIP yi nga tey a baax lool parce que gis naa ne VIP yëpp le fait que tey bi lan la la jaral dina gën a sa kanam ci VIP wala bu la tafaatin daanee sabotage lay doon nan ngay waajal sa diggante ak VIP yi. benn question mu tontu ma dese beneen waxum waxuma kenn sama yoon nekku ci quoi pour ma seen laay laaj. waaw jàmbaar maa ngi lay jaajëfal bu mu doon nga nekk tamit aussi ku xam laa ko daal di kii dugg dugg xam nga nekk yokk laa ko tamit aussi vraiment ñu lay jaajëfal bu baax question moom vraiment dina neex dina neex a tontu kooku ak man ndam rek laa ciy gis ba gisul keneen lu gañ rek. ok incha allah rabbi. dernière question bi mooy dañu remarqué combat bi mujj jël amu ci. muy Boy Niang di Bombardier dam mu def ci am est-ce que combat bi Eumeu Sène pare na pour jeexal ko ci cinq minutes parce que dañ ne combat bu yàggee amul ci nga ci toog jërëjëf. lañ bëree deux jours maag moom combat yi pare nañ pour bëri moom ñaari fan. waaw loolu moom moom dégg naa ko mu naan ay tas ngeen mën ay laaj ndox loolu na ci noppali ko waaw na ci na ci kanam dal bu baax. incha allah jërëjëf ma ñëw ma ñëw jërëjëf. jërëjëf mbokk yi ñu ngi nuyu ñu teew saal bi yëpp nuyu mag ñi nga xam ne ñoo fi teew su ma nee Père Gourxaate ak Père Pala Malick Thiandoum maa ngi leen nuyu. Eumeu Sène maam ñaari question yu jëm ci yow ñu ngi dina toog ñoom dina jàng ak ñëpp Pape Boy question bi njëkk bi nag mooy ndax mën na la gis Eumeu Sène 2005 keroog bi ngay taal soloy topp soloy topp mën a xeex ban tuddee ko olifin keroog bi nga jëlee soloy topp ñëpp dañ ni Eumeu Sène day xaaru nga daan ko avec la manière est-ce que def di ko ñu gis nañu apprécié combat bi ndax mën nañoo xaar am seen boobu 2005 ci combat le 12 bii moo bi. waaw incha allah am seen moom xam nga naa ni nii laa gën a pare sax yooyu combat lay wax waaw incha allah ñu ngi gis am seen contre Gris Bordeaux boo xam ne suñu doom bi contre Gris Bordeaux bi ñu desal gën a tënk incha allah. jërëjëf sa beneen question bi mooy ku ne gis